asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli yonent boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel ci weeru tëdd wi ñu nekk yàlla baaxinu ko di weeru am solo ci nun jullit ñi ngir màggaay goo xam ne gi weeru yàlla màggal na ko ak ay teraanga yoo xam ne yi yàlla def na ko ci biir weer wi ñeel su ko defee ñu leen di nuyu nuyu boobu sell boobu di leen ziyaare di leen dokkeel itam bu baax a baax di jël nuyu boobu it nag di ko teg ci loxol sunu kilifa gi sunu sang bu baax bi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko ñaan mu jot leen ñu ko mbokk yi nga xam ne yàlla danoo defal tawfiq ñu bokk liggéey bii muy góor yàlla yi ak soxna yi nuyoo boobu daal ñoo ngi koy teg ci loxol sunu sang boobu di ko siyaare bu baax a baax moom itam di ko ndokkeel wax dëgg yàlla di am mbégte lool ci moom ci ànd goo xam ne bi ànd na ko ñun ci liggéey bi lool doon ab soññ lool ci ñun wallaay ñu am ci ab yëg-yëg bu baax a baax kon ñoo ngi leen di nuyu nuyu boobu di ko jaarale ci moom di fas yéene ñëw ak yéen rek ci liggéey bi nga xam ne bii moom lañu yàlla baaxee te muy liggéeyal xaadimu rasul ñu ci ndokkeel bokk yi wax dëgg yàlla taxawaay bu am solo biñ ci taxaw muy ñi nga xam ne ñi ñoo gën di saytu liggéey bi di ci jàngale ak it ñi nga xam ne ñi ñooy def programme yi lu mel ni Moodu Ngom yore programme bi waaye tamit mbokk yi nga xam ne ñoom ñëpp góor ñi ak soxna yi ñu ngi ci biir wax dëgg yàlla di ci wane seen yéene suba bu ñu xëyee di ci wax lu rafet di ci wax lu baax di ci wane yitte yoo xam ne ji am nañ ko ca loolu ñoo ngi leen ci ndokkeel bu baax di leen ci ziyaare di ñaan yàlla daal liggéey bu sell bii nu yàlla baaxee te muy liggéeyu xaadimu rasul te mu firndewu ne liggéeyu xaadimu rasul la ndax mbooloo moo xam ne nii dañoo nosu ci nañ liggéey si bi nosu koo xam ne bii liggéey booba ñu ngi ci jiital jàng alquranu karim waaye itam teg ca di jàng ay xasida yu takku yu am solo waaye tamit di ca gën a leeral tànn ci ay jëmm yoo xam ne yii dañuy gën a leeralal mbindam Cheikhuna Xadim bi loolu firndewu na ne liggéeyal Cheikhul Xadim la kon yàlla na ko yàlla nungul te kawe na may na ci lu koy suñu jot maa ngi déglu te ku mu doon ci ñun rek nga ne ci biir liggéey bi yàlla na yàlla fajal say aajo dafa la taw fi lu koy suñu ëpp ba li nga bëgg a liggéeyal Xaadimu Rasuul lépp nga ma ne ko lu koy suñu jot bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi ginnaaw bi ñu leen ziyaare ziyaar boobu ak néew boobu ñoo ngi leen di baal xàq di ñaan ngeen baal ñu xàq ci barkeep weeru tëdd wi ñu dugg te di soññaat suñu bopp rek ak di soññaat mbokk yi ci ñu gën a góorgóorlu ci lépp loo xam ne rek lu ñuy jëriñ àdduna ak alaaxira la te dara jiitu ca liggéeyal xaadimu rasul ndax liggéeyal xaadimu rasul mooy liggéeyal islaam liggéeyal islaam mooy liggéeyal seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam liggéeyal seydina muhammad mooy liggéeyal yàlla kon ñu jéem a ñëwaat rek tàbbiwaat ak yéen ci jataay bi nga xam ne bi moom lañu tuddee al fatwa te mooy mbokk yi di ci rotal ay laaj noonu itam ñu ci jéem a nab nabi ak di gëstu di ca jéem a tontu loo xam ne nii lu méngoog la ñuy laaj la loolu tamit ñu di ci soññ suñu bopp di ci soññ ñëpp ndax ndimbal la lu rëy loo xam ne lii lu ama am solo la ndax ni ko yàlla waxee rek danoo jox ndigalal fas alu ahla dikri in kuntum la taalamuun yàlla dane yéen ñi nga xam ne nii xamuleen lépp lu leen lënt ci seen wàllu diine ak seen wàllu àdduna na ngeen ko laaj ñi nga xam ne ni yàlla dogal nañu xam kon ñi jóg dugal seen laaj yi ñu ngi def lu am solo loo xam ne lii ñu ngay dimbali seen bopp waaye tamit ñu ngay dimbali ña nga xam ne ñi xañ na seenam xel àggutam ci laaj loola te fekk na xamuñu ko waaye tamit ñu ngay dimbali ña nga xam ne ñi xañ na am na yoo xam ne yi maanaam seen kersa dina leen àggale ci maanaam dinañ ko bëgg a laaj waaye dinañ ko rusa laaj waaye foofu itam dañ leen di yee ci leen ne diine moom amut kersa maanaam laa xayaa fi diini la yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam laa xayaa fi diini diine amut kersa am ci lu lent loo xam ne lii ak lu mu garaaw garaaw ak lu mu mën a demee rek danga ko war a laaj boo ko xamut ndax comme bu ñu jàng Laxdari yu niñ ca sëñ bi jàngalee mooy warut ci menn mu kallaf muy def lenn loo xam ne ni xamut lan la ca sharia ak ba bare muy doog a def loola wala mu di ko doog a wax kon lu mu mën a doon yow ci sa diine bu la lëntee xamoo nu mu demee rek danga war a yëkkati loolu nga laaj ko su ko defee mën naa am di nga ca xam la nga xam ne lii moom nga ca war a xam kon xam naa ñu jéem a dugg rek ci liggéey bi comme ni ñu ko baaxoo woon kon fi ñu bëgg a tàmbale liggéey bi tey rek mooy xañ na sunu jataay bële jàll muy semaine bële laaj yi dafa takkoon lool bari woon lool ba xañ na nan ko bëgg a yaatale lool mën na ko woon waaye tamit am loo xam ne lii bëgg nañ ko ca boole ca la nga xam ne ni suñu mag ju baax jooju sëriñ biir da ko laaj mu jëm ci wàllu koor muy laaj koor ak ñi fi jiitu woon ak suñu koor gii nga xam ne am na luñ ko ci faram fàcce lan wax ko ko jéem caa def ak leeral ba wax ko it ay jëmm yoo xam ne xañ na doon nañ woor bu jëkk laataa lislaam di ñëw waaye xañ na seen koor googee mën naa am nañ ko doon defee lu dëgg-dëgg nañ nañ leen nañu digale woon ñuy woor waaye ndax mën naa am dañ cay yokk dara wala ñu wàññi ca dara wala ñu di ca def lenn loo xam ne xaj na dina wuuteeg nañ leen ko sante woon comme ñooñu ñu leen doon limal waaye tey ji itam lañ ca bëgg a dolli war rek ba la ñuy jàllaat ci yeneen laaj yi fi mbokk yi rotal mooy tey dañ koo bëgg a wax siyaamul anbiyaa yi maanaam yonente yi ñoom nan lañu doon woore ñu ne wulida siyaamu maa wujudi aadama ala satxi l ardi fa kaana yasuumu thalathata ayaamin min kulli shahrin wa yusamma bi siyaami tawbati baada an xaraja min aljannati wa majmuucu maa kaana yasuumuhu min ayaamin fi sanati sitta wa thalathuna yowman ñu ne koor moom naka jekk bi seydina aadama ñëwee ci kaw suuf rek la koor ànd ak moom nga xam ne seydina aadama ni mu doon woore mooy da doon def weer wu nekk maanaam mu woor ca ñetti fan koor googu itam ñu ngi ko doon tudde koor ak tuub nga xam ne ginnaaw bi mu génnee ca ajjana ja muy ba ko yàlla tere ne ko may naa la loo bëgg a jëfandikoo ci àjjana nga jëfandikoo ko yàgg sa soxna si xawaa ba mu des genn garab te seytaane dem nax leen ba lekkaloo leen ca garab googee ba yàlla génn leen ne ne bi mu génnee ci àjjana daal ba ñëw fii ci kaw suuf la tàmbaleen di woor koor boo xam ne bii weeru ndugg rek da cay woor ñetti fan yoo xam ne nii koor ak tuub loolee mu defal la ngir yàlla jéggal ko ko su ko defee suñu xoolee natt li nga xam ne ni moom la doon woor ci at mi yépp ne nañu day tolloog fanweeri fan ak juróom benn kon loolu itam lenn la ci loo xam ne li seetlu nañ ne Seydina Adama loolu la doon wooree waaye koor ak Seydina Adama boobu it nga xam ne ñetti fan ci weer wu nekk Seydina Noox it moom itam ñoo ko bokkale woon Seydina Noox it moom itam weer wu nekk ñetti fan la ca doon woor comme noonu nga xam ne ñii noonu la ko seydina Adama doon woore beneen yonent bi ci toppaat muy seydina Dawuda alayhi salaam mu ne wa kaana siyaamu Dawuda muxtalifan xaytu kaana yasuumu xayra siyaami kama dakara zalika arrasulu sallallahu alayhi wa sallam xaala kaana Daawudu yasuumu yowman wa yuftiru yowman wa huwa siyaamu al aktharu fi l caami xaytu kaana yasuumu miatan wa isnayni wa thamaniina yowman mu ne Seydina Daawuda nag moom kooram dafa wuuteen lool ak koor yee jàll ne muy gog aadama gee ak gog noox gi ndax Seydina Daawuda moom neneen moom koor gi gën ci koor yi moom la doon woor ndax moom da doon def su wooree bés bés ba ca topp mu bañ ko woor su bés beneen bés bi ñëwaatee mu woor ko maanaam da doon woor bés daal di bàyyi bés te koor googu nañu ne mooy koor gi nga xam ne kii moo gën ndax loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne Daawuda de moom mi ngi doon woor koor gi nga xam ne kii moo gën koor yépp ndaxte mooy koor bi nga xam ne bii bu ñu limee ay bésam mooy koor gi gën a bari ci at mi muy bu ñu koy xool kon Seydina Dawuda saa bu wooraa ba at mi jeex day woor téeméeri fan ak juróom-ñetti fan ak juróom-ñett fukki fan ak ñaar yoo xam ne yi moom lay woor ci at mi kon koor googu mooy koor gi nga xam ne bii moo ëpp koor yi ñu yoon woor yépp ci ñoom yonente yi salawatullahi wasalaamu alayhim wa sulaymaanu alayhi salaamu kaana yasuumu tisata ayaamin min kulli shahrin thalathatan awalahu wa thalathatan wasatahu wa thalathatan axirahu seyduna suleymaan moom dem nam doon woore mooy weer wu dee da doon def mu woor ci juróom mu weer mu woor ci juróom ñeenti fan nga xam ne su weer yu tàmbalee da ci woor ñetti fan bu demee ba ca digg weer wa mu woor ca ñetti fan waaye tamit bu demee ba ca mujjantal ak weer ga foofa mu woor fa ñetti fan kon léegi boo ko boolee loolu muy nekk juróom-ñeenti fan yoo xam ne bii Seydina Suleymaan moom noonu la doon weer woore saa bu woo bu weer teroo mu woor ñetti fan yu jëkk ya woor ñetti fan ya ca digg ba woor ñetti fan ya nga xam ne yi moo mujj wa sayyiduna ibrahimu kaana yasuumu ala tariqati aadama alayhi salaam thalathata ayaamin min kulli shahrin ñu itam sayyiduna ibrahima itam comme ni sayyiduna aadama doon woore rek la doon woore moom maanaam mooy weeru dee mu woor ca ñetti fan te ñetti fan yooyu moom la ñuy tudde léegi ci suñu jamono jii mu nekk mooy sawmul ayaam al biid mooy loolu ñuy wax al ayaamul biid ci weer yi mooy weer yi bu dolloo ci fukki fan ak ñeent fukki fan ak juróom fukki fan ak juróom benn loolu la ñuy wax al ayaamul biid mooy foofu nga xam ne fii weer yi day leer lool lool ne na ñetti fan yooyu moom itam moom la sidna ibrahim doon woor comme ni nga xam ne ni noonu la ko sidna adama doon woore wa kaana siyaamu nabiyillahi muusa muxtalifan bi xasabi al ayati al karimati xaysu yaqulu lahu subhanahu wa taala wa waadna muusa thalathina laylatan wa atmamnaha bi ashrin fa tamma miiqaatu rabbihi arbaina laylatan ay أن الله أمر موسى بالصوم ثلاثين يوما متتابعة دون إفطار حتى يلقى ربه ويكلمه وبعد أن أوفى موسى صومه كره أن يلقى ربه برائحة الفم بعد الصيام فأخذ قطعة من شجرة يستاك بها وأمره الله أن يصوم عشرة أخرى عقابا لمخالفته Seyduna Muusa moom ne ne moom itam kooram dafa wuteeg koor yële jàll ca yonente yële comme ni ñu ko aay bi waxe tegtale nañu ko ne man yàlla di dig naa Muusa ne ko na nga tànn fanweeri guddi yoo xam ne dangay woor seeni bëccëg waaye tamit dafa mujj mottali ko tegaat ca fukki fan muy fanweeri guddi yoo xam ne yii yàlla daa mu digal Musaa ne ko wa wooral yépp dangay woor seeni bëccëg ñu doon ñeent fukki fan kon loolu nag lay sam sa mooy yàlla moom dafa digaloon Seydina Muusaa ne ko wooral fanweeri fan ngir boo wooree fanweeri fan yi ba pare nga mën a ñëw dajeeg man ngir ma mën a wax ak yow comme dañu wax ne Muusaa da doon wax ak yàlla wala yàlla da doon wax ak Muusaa ne ne nag rendez-vous boobu yàlla jox Muusaa ne ko boo wooree koor gi ba mu jeex muy fanweeri fan nga ñëw ma wax ak yow ne ne Seydina Muusaa bañ a dajeeg boroomam ci xet googu nga xam ne bii koor gi def na ko ci gémmiñam mu dari jël ab soccu di ko soccu woo ngir bëgg gémmiñam googu laab ba muy dajeeg boroom di wax ak moom mu doon gémmiñ goo xam ne bii bu yor xet gu neex la waaye loolu mu tànnal boppam ngir wut soccu bi balay dem ci boroomam maanaam mu soccu ngir xete koor googa dañ ci gémmiñam maanaam ne ne loola daal ca la ko yàlla chansonné ngir ni mu wuutee ndigalam noonu ko wooral rek te ñëw dajeeg man ma wax ak yow mu ne ko kon dangay waraat fukki fan yoo xam ne danga ko ciy tegaat ngir ma mën a dajeeg yow foofu itam liñ fi dégg mooy koor dafa am solo lool te ku ne xam na ne booy woor boo demee ba mu yàgg ci bëccëg gi ba ay côté ngoon jëm noonu sa génn xet gi day soppeeku waaye xet googu noonu muy mel noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne xet googu moo dàqal yàlla xetuk lat koloñ bi gën a baax ci lat koloñ yi lat koloñ bi gën a neex ci lat koloñ mooy misk ne ne kooku woor xet googu nekk ci gémmiñam gi ne ne moo gën a yàlla fuuf moo gën a neex yàlla xet ak lat koloñ googu li muy neex neex lépp te defe naa ni nu ko aay bi waxee buñ ko jàngatee dinañ ci gis loolu ndax yàlla subhaanahu wa taala bi muy bëgg a wax ak Musaa dafa bëgg na wax ak moom ci ginnaaw bi mu wooree ba pare ànd ak xet ak gémmiñam googu wa warada fi lquraani siyaamu maryama alayha assalaam wa huwa siyaamuha an ilkalaami maa annaasi kama warada fi l aayati alkarimati qaala allahu taala fakuli washrabi wa xarri aynan fa imma tarayinna min albashari ahadan fa quuli inni nadartu lirahmani sawman falan ukallima alyawma insiyan kon geneen koor nga xam ne bii moom lañ mujj rek ci koor bi yonent bi salawatullahi alayhim mooy kooruk sayyiduna Maryama gi nga xam ne bii alquran wax nañu ko waxan naa ko sax keroog ca ba may wax koor yële muy sayyidatuna Mariama koor ga ko yàlla digaloon mooy bañ a wax ak nit ñi muy aay bii ne ko fa kuli washrabi wa xarri aynan ne ko na ngay lekk tey naan te seral sa xol fa imma tarayinna min al bashari ahadan waaye foofu gise doomu aadama foofu gise nit fa xuuli inni nadartu li rahmaani sawman na nga ko ne tey jii moom danga ko junj sax la koy wax ne ko tey jii moom dama diggeeg sama boroom koor falan ukallima al-yawma insiyan te koor li ma digga mooy ñàkk a wax ak nit kon tey jii duma wax ak kenn kon koor boobu mooy nga xam ne bii kon xam naa moom la ñu mujj ci li ñu doon balliwaat rek ci laaj yi song boobu ci muy koor ak yonente yi nga xam ne noonu lañ ko doon wooree yàlla doon defal tawfiq bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin kon dañuy tàbbiwaat rek ci laaji sang bu tedd bi Serigne Badara Ndiaye oustaz ñoo ngi lay ziar bu baax a baax di la ndokkeel te rafetlu sa taxawaay ci liggéey bi jàpp nañ ko bu baax a baax yàlla na yàlla doon defal tawfiq bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom Serigne Badara Ndiaye moom itam bokk na ci ay laajam li muy laaj mooy shurutul imaam ki nga xam ne kii day jiite yan sart moo war a nekk ci moom ba tax mu mën a jiite ñu ne ko bokk na ci charte yoo xam ne yi fawu imam danaa war a mel muy azzukuratul muhaqqaqatu fala tasixu imamatul mar'ati ne ne imam bi nga xam ne bii dafa war a jiite bokk na ci ay charte mu nekk góor maanaam mu doon góor gu wërëwër goo xam ne bii na góor war a mel népp maanaam ma nga ca moom mooy addukuuratul muhaqqaqatu ak ngóora goo xam ne gi gu dëggu la goo xam ne gi dara du ca manqué bu ko defee dalay wax ne la kon jiite jigéen du wér maanaam jigéen bu wér bu jiitee julli ga du wér du baax bokk na ca sarti imaam yi muy al islaamu mooy kuy jiite dafa war a doon ab jullit bokk ci lislaam fala tasixu imaamatul kaafiri jiiteek ab yéefar moom itam kon du wér bokk na ca charte muy al aqlu muy kiy jiite dafa war a amam xel ànd ak am xelam fala tasixu imaamatu majnunin aw sakraan ne ne jiite koo xam ne kii am daf la àndut ak ab xelam wérut waaye tamit koo xam ne kii dafa naan sàngara ba man bi moom itam bu jiitee jiite ko du wér bokk na ca charte imaam ya muy al buluuru fil fardi wala tasixu imaamatu sabiin lil baalixi fil fardi kii jiite bokk na ci sartam bu dee julli farata la mu nekk koo xam ne kii ku masoor la mooy koo xam ne kii mat na mu kàllaf ci lislaam te loolu am na fu ñu koy nattee ay màndarga yoo xam ne bu feeñee ci nit ki rek bu dee góor la ñoo xam ne kii moom maanaam masoor na maanaam mat na mu kàllaf waaye am màndarga yoo xam ne itam dañu koy natt ca jigéen ga bu ca nekkee rek ñoo xam ne moom itam nekk na mu kàllaf ci lislaam su ko defee kiy jiite war naa àgg foofu su ko defee xale bu ndaw bu àggagul foofu bu jiitee jiite gu du wér waaye bu dee ci julli farata la bokk na ca sharti imaam alxudratu ala al arkaani fala tasixu imaamatu ajizin an ruknin kal xiyaami illa liman yusawihi fiihi na ne ki nga xam ne kii day jiite itam ponk yi nga xam ne mooy ponk julli yépp da ko war a mën a marqué di ko def maanaam waru ca manquil benn bépp boo xam ne bii tële na ko ci rek su boobaa du mën a jiite ponk yépp da ko war a mën a def muy sëgg gaag sëgg gaag sukk ca suuf gaag taxawaay ak yépp da ko war a mën bu ko defee ne ne koo xam ne kii dafa tële ci def benn ponk ci ponk yooyu mooy koo xam ne kii mënta taxaw julli wala bu dee julli mënta sëgg wala buy dem bay sujjóot sukk ba du mën a sukk ne ne wërta jiite ñoo xam ne ñi melu ni ni ñoo ni moom comme nga xam ne loolu mu tëli ña muy jiite dañ koo tële waaye kon su fekkee ni nag ña muy jiite ñoo bokk ñu tële ca ponk yooyee su boobaa mën na leen a jiite bokk na ca sharti imaam an laa yakuna ma'muman fala tasixu xalfa ma'mumin ne ne bokk na ci sarti imaam mooy mu bañ a nekk koo xam ne kii dañ koo jiite woon mu wëlbatiku di jiite waat loolu nag maanaam xam naa am na ñoo xam ne ni faw ñu leeral leen ko mooy ñoo xam ne ni dañoo ñëw ci jàkka ji fekk mbooloo mi di julli xam ne dañ leen di jiite waaye ñoom dañ leen a raw biñ leen rawee nag ñu doon mbooloo loolu maanaam ñaar lañu wala ñett lañu ñu ànd ci julli ga la ca des bi imaam sëlmalee ñoom ñiñ rawal ñu jóg war a mottali la leen desen ci julli ga nga gis ne kenn ci ñoom kat ñeneen ñi ñoo koy roy maanaam ànd ak moom loolu baaxut ay nit bu ñu ñëwee ci julli mbooloo fekk ñu raw leen su imaam sëlmalee ñoom ñëpp ku ci nekk danga war a doon sa imaam yi bopp danga war a ber sa julli àggale ko waaye loolu dañ koy seetlu sax nag ne léeg-léeg nga gis mbooloo ñëw ci jàkka ci julli mbooloo ñu raw leen bu imaam sëlmalee nga gis ne ñu ngay topp kenn ca ñoom ca ñi nga xam ne ñu julli ga da leen raw maanaam di def la muy def ba kere bu sëlmalee mu sëlmal loolu la ne baaxut mooy allah yakuna ma'muman wërta nekk ku ñu jiite woon ba pare muy wëlbatikuwaat di jiite bu ko defee loolu itam fala tasixu xalfa ma'mumin mbooloo moom mën a doon su fekkee ni julli gi mel noonu moom la ñu julli ne ne seen julli baaxut an la yakuna mutaamidal xadas dañ itam kiy jiite bokk na ci ay charte mooy bu mu nekk koo xam ne kii laabut te moo ko tey maanaam war naa jàpp te jàpput wala mu war a sangu farata te sangu farata te moo ko tey fàttewu ko ñëw di jiite fala tasixu xalfa mutaamidil xadas fiiha képp koo xam ne kii mi ngi ñëw di jiite te war na jàpp jàpput te moo ko tey wala mu war na sangu te sanguwut ñëw jiite moo ko tey fàttewu ko ku ku mu jiite julli googee wérut bokk na ca sart ya al ilmu bi ma la tasixu salaatu illa bihi min fiqhin wa xiraatin fala tasixu salaatu man iqtada bi jaahilin bil fiqhi wal xiraati illa an yakuna mithlahu wa taazara alayhi taallumu ne ne bokk na ci sart ki war a jiite maanaam lépp loo xam ne lii luy wéral julli ga la maanaam mu xam ko lépp loo xam ne lii julli ga mënta yéwén mënta baaxal lu dul ca loola loola ki jiite da ko war a xam su ko defee loolu nag wàllu lu mel ni lu aju ci njàng ma muy fiq waaye tamit alxuraan yi nga xam ne nii da koy jàng nga xam ne mënu caa jàng mënu caa ñàkk ne ne yooyu yëpp da ko war a xam lépp lu ci aju ci fiq mu xam ko waaye itam alxuraan yi itam mënu caa ñàkk bo jàng faatiha ak yenn ti saari wala lenn ci ay aay kon ne ne képp koo xam ne kii topp nga ci imaam joo xam ne ji xamul fiqh mënta jàng alxuraan sa julli du wér lu dul nit da ngeen a yem te it ngeen am ngantal maanaam mënu leen a dem xam lu ji kon bu ngeen ca yemee nag moom yéen ñëpp bokk xamu leen fiqh daanaka mënu leen a jàng alxuraan ku ci nekk mën naa jiite sa borom waaye nag da cay teg sartat maanaam ñu am ngantal mënuñoo xam lu ji bokk na ci sarti imaam al iqaamatu fil jumaati fala tasixu l jumaatu xalfa musaafirin bokk na ci sarti imaam itam bu dee jullik ajjuma la imaam de doon koo xam ne kii ku dëkk ca dëkk ba la waaye koo xam ne kii gan la fa su ñëwee bu jiitee jullik ajjuma boogee julli ga du baax ak ku mën a doon bokk na ca sarti alxuriyatu ba tey fil jumaati fala tasixul jumaatu xalfa abadin neneen itam bokk na ci sarti imaam bu dee jullik ajjuma la ba tey itam kay koy jiite nekk ab gor waaye ne ne ku julli ci ginnaaw ak ku ñu moom muy ab jaam julli ga du wér xañ na masala bi sax na xañ na moom doon bu dox ndax xam naa yooyu bu ñu dee xool islam taxawaay bi mu taxaw fi mu ne nii moom ay kii gor la kii leneen la moom amatut amatut ci lislaam bu ko defee yooyu daanaka boobu moom daanaka mën nañ koo xaw a teg ne daal moom su ko defee nag na ne wa man iqtada bi imaamin gayri mustawfin li shuruuti l imaamati l madkurati batalat salaatuhu wa wajaba alayhi l i'aadatu aw wa wajabat alayhi l i'aadatu kon nag ne ne ci mujjantal bi daal mooy lii mooy sarti yi nga xam ne lu war naa dajaloo ci imaam mu doog a mën a jiite nene nag képp koo xam ne kii roy nga ci imaam joo xam ne kii matalewut charte yii nga xam ne jullim baaxut julli nga yàqu na te ginnaaw bu ko xamee daa war a baamuwaat jullim googu kon xam naa charte yooyu mu ngi noonu ñu jéem koo toppaat benn par benn rek bu nekk ñu jéem koo xam mooy nga xam ne lii moo aju ci laajam bu njëkk boobu beneen laaj bi ci toppaat daneen mata tajuuzu salaatu jumaati fii xaryatin waaw ab dëkk moom kañ lañuy mën a julli jullik ajjuma ñu ne ko li salaati jumaati shurutun indal malikiyati jullik ajjuma dafa am ay charte ci ngir yépp waaye bu ñu xoolee ci ngiram imam malik ñu ne dëkk boo xam ne bii dañoo bëgg a taxawal juma maanaam di julli ak juma nañu fexe ba sart yi ñu bëgg a wax am moom itam xam naa dafay mel ni dina xaw a duggante sart imaam yañ doon wax fee ndax fii mi ngi ci tàmbaleewaat azzukuratu fala tajibu ala al mar'ati dëkk boo xam ne bii dañoo bëgg a taxawal julli ak juma nañu fexe ba ay góor nekk fa yoo xam ne yi maanaam mën nañoo mottali chart yi jullit ajjuma ga ndax jullit ajjuma am na lim boo xam ne bii ay góor lañu war a doon yoo xam ne su ko matut duñu mën a am sañ-sañab taxawal jullit ajjuma ca dëkk ba xam naa ca kanam na la dinañ wax lim boobu ñaata la war a tollu bu ko defee jullit ajjuma warul jigéen moo tax kon ay góor lañ cay taamu moo waaw ab dëkkit bu ñu bëggee taxawal jullit ajjuma war nañoo xam lii mooy adamu wujudil uzri al mubihi li tarkiha balañ tey sóobu nañu jàngataat bu baax a baax ba xam ne day ajjuma bu jot bu soobee yàlla day am nañu kóolute ci ne duñu am genn ngant koo xam ne gi dina leen gàllankoor ba maanaam jullit ajjuma googee duñu ko julli ca bés boobee ndax bu ñu ko xasee tàmbali moom dañuy war ajjuma bu jot rek maanaam ñu julli julli jumaa googu julli ko ajjuma googu kon balañ cay dugg di taxawal julli ko ajjuma ga nañu xool ba am kóorute gu wér ne daal xañ na daal bu nu yàlla dimbalee moom du nu am genn ngant ak maanaam ajjuma dina ñëw nuy am gàllankoor ba du nu mën a julli julli ajjuma bokk na ci itam ngir ñu mën a taxawal julli ajjuma al istitaan bimaana istitaanatin xawmi fi lmakaani istitaanan daaiman yuwaffiru lahum shuura bil amaan dañu ab dëkkit comme daanaka mooy lay jàllan ne rek bu ñu bëggee taxawal ajjuma nañu xool waa dëkk ba xam ne ñi fi dëkk ñépp day am nañ ñu fi dëkk ñoo xam ne ñi saa su ne dañu fiy nekk nekk koo xam ne bii dinañ am kóolute maanaam suñu xasee dugg ci jullit ajjuma ga maanaam duñ ci am lenn luñ ciy tiit loo xam ne dañuy ragal ñu ñëw yàqal leen ko wala dara ñëw dinañ ko yàqal bu ko defee moom itamit daanaka de delluwaat ca la mu doon wax naan dafa ay góor yoo xam ne mën nañoo saytu ajjuma ja saa su ne ba saa su ajjuma jotee ñu mën koo julli ci bokk na ca kon lim bi ñu doon wax nga xam ne moom charte la boo xam ne bii moom itam su ma tut dëkk ba duñ sañ a taxawal jullit aju mooy xuduuru thnay ashara rajulan li salaati jumaati xayral imaami ne ne dëkk boobu itam buñ bëggee di julli julli ajuma nañu fexe ba am sécurité bu toll ni ki maanaam su ajuma jotee lu mu néew néew dinañ am fukki góor ak ñaar yoo xam ne imaam ja du ca bokk su ko defee suñ ko mënee garanti ne ajuma jot de moom faaw dinañ am lu mat fukk ak ñaar te imaam ji du ci bokk su boobaa bokk na ci charte yi xam ne yi dina leen may ñu mën a taxawal julli ajjuma ka al imaamu ko defee itam bu ñu bëggee taxawal julli ajjuma dinañ wut imaam boo xam ne bii yushtaratu fil imaam an yakuna xatibal jumaati falaw salla bihim xayruhu batalati salaatu xanaa itam bu ñu ko bëggee taxawal war nañu wut imaam boo xam ne bii sàpp yee ñu doon wax te imaam day dajowe ci imaam boobu yi su ko defee imaam bi nga xam ne bii moom lañ tànn ne ko yoway julli yoway jiite julli ajjuma gi na nekk ka nga xam ne kii mooy jàng xutba ba bu fekkee ni dañuy jiital imaam boo xam ne bii mënta jàng xutba ba nga xam ne day am ku xutba keneen julli koo xam ne ki bokkut ak ko doon jàng xutba ba ne ne bu boobaa julli ga baaxut day daal di yàqu bokk na ci itam aljaamiu falaa tasihul jumaatu fi bayti bokk na ca sart ya ñu am béréb boo xam ne bii jumaa lañ ko tudde ndax julli ajjuma dee si ko defee ci biir kër kenn du dem ci sa kër nekk sa kër dafa julli julli ajjuma wala ñu ne nañ dem ci kër sangam dafa daje dafa julli julli ajjuma kon lii itam lenn la ci charte yoo xam ne dëkk bu bëgg a taxawal ajjuma daal buñ jàngataatee tomb yi maanaam bu dajee ci ñëw rek su leen neexee mën nañoo julli julli ajjuma wallahu aalam beneen laaj bi ci topp soxna astafay ñoo ngi koy ziar bu baax a baax mooy itam di ko ndokkeel ci yittewoo bu mu yittewoo liggéey bi ndeysaan bëgg lu baax rek saa su ne mu di ci feeñal yéeneem naka jekk noonu la ma soxla wax dëgg yàlla di gëstu diineem di bëgg lu baax di def lu baax di koy wax lu baax yàlla na ko yàlla doole jàppale ko jaay seen am sallallahu alayhi wa sallam mooy itam mu nekk ab soññ ci soxna yépp ngir ñuy góorgóorlu ci suñu diine di laaj lépp loo xam ne lu ñu war a laaj la moom tey bokk na ci ay laajam mu ne al ajzu an is-sawmi li kibari sinnihi aw maradin hal yajibu alayhi al-it'am moom li muy jëkkala tey mooy koo xam ne kii dem na ba àgg ci ay at foo xam ne fii mënatu la woor wala boog am na feebar boo xam ne bii deme na ci moom loo xam ne nii feebar boobee mënatu ko boole ak koor maanaam mënatu la woor ngir ne léegi dafa mage wala feebar na feebar boo xam ne bii feebar ba mayu ko maanaam mu mën a woor ndax day waral leele maanaam leele mooy joxe aw ñam ngir remplacer ko koor googu nga xam ne bii moom la war a woor waaw loolu lu war la yajibu alayhi al-it'aamu dafa war di leele bu ko yàlla dogalee mu am kàttan nag man ko su ko defee day ba àggee foofu day war a wut bés bu nekk aw ñam woo xam ne bii da koy jox am miskin maanaam koo xam ne kii dafa ñàkk ndax loolu lay wax ne walakin laa yujzi u ixraaju nuquudi fi fidyati sawmi wal waajibu an tuxraja taaman ne ne nag itaam boobu muy leele googu maanaam ne ne buñ ko xayma di ko def ab xaalis ndax ne ne boo ko defee ab xaalis bu baax waaye li war mooy maanaam ñu génne njotu googu moo xam muy koor googu mu doon aw ñam ndax loolu lañu alxuraan wax ne ne qaala allahu taala wa ala allazina yutiqunahu fidyatun taamu miskinin alxuraan dafay wax ne ñi nga xam ne ñi àgg nañ ci ay at boo xam ne bii bu ñu woor koor ko day métti lool ci ñoom wala dootuñu ko mën sax wala ñu feebar feebar boo xam ne bu ñu wooree koor ko day métti ci ñoom lool dañuy àgg ci foo xam ne si dootuñu ko mën war na leen ñoom ñooñu fiddiyatu fiddiyatun taamu miskin ñuy jote seen bopp koor googee ñu war a koor ci di joxe aw ñam woo xam ne bi ñamu miskin lay doon fa yut'imu makaana kulli yawmin miskinan ne bu ko defee ki àgg foofu bés bu nekk na leel am miskin aw ñam su ko defee miqdaarul fiddiyati nisfu saain min burrin aw tamrin aw ursin min xuutil baladi wa yuaadilu saawu kilogramme wa nisfan taqriban bu ko defee lim war a leele mooy kilo ak genn wàll rek lañ koy wax maanaam kilo kab liibar maanaam bu dee dugub la nga natt kilo kab liibar bés bu ne jox ko miskin wala ab ceeb bés bu ne nga natt kilo liibar jox ko miskin wala tàndarma wala daal loo xam ne yow gox ba nga nekk moo ëpp ci la ñuy dundee suba boo xëyee nga natt ca kilo kab liibar jox ko koo xam ne kii miskin la walahu an yuxrijaha fi axiri shahri xamsatan wa arbaina kilogramme min al urda neneen tam may nañu ne koy kooku di def état muy leele su ko neexee mën naa xaar ba ca mujjantal ak weer wa maanaam mu génne ñeent fukki kilo ak juróom cib ceeb maanaam jox ko miskin wala mu am ay miskin yu mu ko jox kon loolu mën naa ci wàllu ki nga xam ne kii àgg na ci koor foo xam ne fii àgg na ci at ay at foo xam ne fii mënatu koo boole koor wala mu feebar feebar boo xam ne fii mënatu koo boole koor daal dafa war di leele aw ñam woo xam ne wii kilo këb lii war lay doon bés bu nekk mooy remplacer koor ka su ko defee aw ñam la doon muy ceeb wala dugub wala lu ñu dundee loo xam ne lii boo ko joxee miskin dina ko mën a jëfandikoo su ko defee loolu mooy laajam bi nga xam ne moo jëkk aju ci wàllu koor beneen laajam bi ci toppaat mooy day laaj al adadul afdalu li dikri yaa salaam dafay laaj wenn tur ci tur yàlla yu tedd yii muy salaam maanaam ñu koy zikkare yaa salaam muy laaj nag maanaam ne ne ban lim moo gën ci ki nga xam ne kii day zikkar yaa salaam loolu itam lañ ko ci wax mooy taxdiidul adadil afdali li hada al ismi laysa amran sahlan walakin yumkinu taxdiidu adadin xaasin li dikrihi wa taxdiidu waxtin lahu dañ koy tontu ne ko nag ñu tegal la ne la lim sàngam day maanaam ñaata moo gën ngir ñu di ko zikkara yaa salaam moom mbir la moo xam ne nii mu xaw a jafe la mu xaw a doy waar la ndax turi yàlla yi moom dafa màgg màggaay boo xam ne gii maanaam kenn mënta am xam-xamab jàpp ne lim sàngam de moo ci gën waaye day war yow mi ko bëgg a zikkar nga wut sa limu bopp boo xam ne bii danga koy jagoo ne man day sasoo naa bis bu nekk ma wax yaa salaam nangami yoon su ko defee nga sasoo ko ci bis bu nekk wutal ko waxtu woo xam ne bii su jotee itam nga daal di ci nekk def ko ndaxte loolu daal mooy li nga xam ne lii moom moom lañ ci war a taxawee ndax yaa salaam moom rëy na rëy goo xam ne bii màgg na màggaay goo xam ne bii maanaam dafa bari lu mu jagoo lool loo xam ne lii lu ci nekk rek dañ na daal maanaam defe ko nii wala defe ko nangam ci ab lim su ko defee ruya min baadi fawaidihi annahu man xaala yaa salaam miatan wa waxida thalathina maratan bi niyati sixati maradi rasi shufiya insha allah comme ni ñu tëlee ne bokk na ci njëriñi yaa salaam moomu képp koo xam ne kii yaa ngi wax yaa salaamu téeméeri yoon ak fanweeri yoon ak benn ngir danga am mitiitu bopp woo xam ne bi dalaa sonal ne ne boo dëkkee loolu di ko wax muy yaa salaamu téeméeri yoon ak fanweer ak benn yéene ci yàlla wéral sa feebara bopp boobu yàlla mën na ko saafara incha allah bu ko neexee bu ko defee it bokk na ci njëriñ wa man daawama ala zikrihi miatan wa ihda ashara maratan yawmiyan kaana qalbuhu aminan min almaradi wa axazahu allahu ila daari salaam meneen itam képp koo xam ne kii saxal nga bi tudd yaa salaam téeméeri yoon ak fukk ak benn ci bés bu nekk ne ne loolu luy raxasab xol la lu koy setalal lu koy leeral la loo xam ne li gépp ràgg ak yépp lëndëm yoo xam ne yooyu xol la rek dina génn ci xolam te it yàlla dina ko ca baaxee su faatoo mu dem dëkkali ko ca kër ga nga xam ne gi ma nga ca àjjana tuddu daaru salaam kon moom itamit yaa salaamu moomu daal ngir ñu ne lim sàngama ci gën moom day xaw a jafe lool waaye ku mu doon ci ñun rek mën nga ci wut saw dog woo xam ne bii mën naa am loo ca fas loo xam ne bii boo ca dëkkee rek yàlla mën na la caa jàppale yàlla nañ ci yàlla daal di defal kaw fi abdi ay sëriñ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leen laajam bi ci topp te defe naa mooy mujj yu ci laaji tey yi mooy mayu xaaloo inda sujudi tilaawati muy ku jàng alxuraan ba àgg ci foo xam ne fii dangaa war a sujjóot booy sujjóot sujjóot boobu looy wax waaw kon ñu delloo delloo xamal mbokk yi rek ci ne alxuraanul karim dafa am ay aay yoo xam ne yi buñ koy jàng buñ ca àggee ba jàng aay yooyu aay boobu danoo war a sujjóot sujjóot boobu ñu sujjóotal alxuraan nag benn sujjóot lay doon allahu akbar lay doon nga sëggu sujjóot comme ni ngay julli comme sujjóotub julli la rek la nga xam ne li moo may wax booy sujjóot sujjóotub julli boo dee sujjóot sujjóot ab alxuraan boobu moo may wax te mooy ginnaaw bi nga ne allahu akbar daal di sëggu sujjóot nga wax subhaana rabbiyal aala loo ko wax ci lim baax na daal di siggi wax allahu akbar waaye itam amutub sëlmal maanaam doone asalaamaaleykum da ngay kàbbar rek sëggu sujjóot wax subhaana rabbiyal aala su ko defee nga kàbbaraat daal di sigi continuer waat jàng sa alxuraan su ko defee subhaana rabbiyal aala ji nag dafa ànd ak loo xam ne soo ko mënee boo ko ca mënee boole mooy gën a jotal ak ñaan la muy bi nga sëggee di sujud sujud boobu nga ne subhaana rabbiyal aala allahumma laka sajadtu wa bika amantu ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين سبحانك اللهم rabbana wa bihamdika allahumma ighfir lii te nga ne ne lii soo ko mënee moom ngay wax boo sëggee di sujjóot sujjóot boobu nga xam ne bii sujjóot ak jàng alquranul karim la kon bu ñu xool sax bu fekkee ni téere xuratul ayni ku ko yor boo ko xoolee boo àggee foofu ci foofu sëñ bi di waxee ci wàllu sujjóotam ci la jàng alquran moom yi di nga fa fekk sëñ Saalu Mbakke radiyallahu anhu wa nafana bihi yàlla na yàlla doole leer te taas ci barkeem wax na fa jàngal na fa sujjóot bu nekk boo koy sujjóot ñaan nga nga xam ne gi moom moom nga ca war a teg comme ni mu ko defee ci li ma la indil fii ci tënkëb sujjóotu tilaawa boobu kon yàlla na yàlla defal dégg ak topp ci jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi dellu di ziyaare ñëpp di baal ñëpp xaq di ñaan ñu baal ñu te li ñu doon wax nii lépp lu ci jub rek ñu xam ne dimbalal yàlla la ak xewalam waaye lu ci jubadi it lu ci dëng luñ ci wax te du noona wala mu jubadi wala mu dëng rek nañu xam ne manque teg doomu aadama la waaye doonul loo xam ne ni moom lañ ci jublu woon su ko defee ñu dellu di ziyaare ñëpp di ñaan yàlla doon ñu defal tawfiq bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu